bon je sais kii saa sama gars yi bëgg naa leen j'espère que yéen a ngi cool gars ah. na moon naa leen namoon naa leen parce que def 4 jours ñu def ma vidéo mooy loolu parce que nekkoon ci xat-xat rek parfois xam nga job bi moom dañu tënk ba nga xamante ni dañuy nekk ci job bi xam nga bu ñu amee temps bu ndaw rek job bi ñu may temps bu ndaw rek dañuy di ko continuer def ay vidéo moom ñu nag yéen moom histoire bi yàgg la xam nga du tey te histoire bi moom day continuer ba abadan quoi parce man moom yéen laa am yéen a ma a xam waaw yéen a may tax à chaque jour may gën di son di def ay vidéo di leen ko jox ngeen di seetaan et cetera quoi. parce que nit nit ki moom amul kenn kenn la am mooy ki koy jàppale waaw donte man maa ngi def ay vidéo mais yéen aussi yéen a jàll vidéo yi tey bu vidéo yi demee bay def euh, genre ay ay 24 heures def ay yu bëri wala abonné yi sax di yokk yéen ñi nga xamante ni yéen ñi nga xamante ni yéen a may mooy yéen ñi yéen a nit mooy yéen abonné yi yéen yéen ñi may yéenay partagé vidéo yi xam nga di ko like di ko commentaire te gis naa ni ngeen may taxawoo quoi wallaay ni may taxawoo bu baax man daal tout cas au monsieur Faye quoi wallaay lancé parfois parce que sama xol day tooy ma defee vidéo di ko partagé. xam nga di di di commenter di like quoi en tout cas au monsieur Faye quoi wax dëgg fa yàlla moo tax man du xam nga du ma nekk fii di di di maanaam. di def ci ñàkk fere quoi à chaque fois bu ma meree lu ci ñàkk fere man moom yéen rek laa am mooy yéen ñi may bëggee xam nga voilà parce que en même moom rus naa def yéen ñi te jomm naa def yéen ñi tamit quoi. waaw gars yi ma leen wax euh, naa leen ci loolu parce que dama doon foofu def benn union de silence sant yéen ñi nga xamante ni yéen a may bëggee moom laay raxas parce que man boo ma seen fay gis naa ngeen ci jàppee bu baax quoi. kon boog yéen samay nit yéen moom parti boobu yéen laa ko yéen laa ko parce que fa faaw mu bëggee leen quoi mooy loolu parce que nit moom amul lu ay nitam. gars yi nag di leen wax ne leen euh, ñu continuer temps yëpp ñu ngi gis benn vidéo mi ngi circulé ci internet bi kooku nag ñu bari xam nañ ko waaw parce que bokk na ci benn série bu mag gars yi ñu ko doon suivre xam nga série bi moom euh, da doon da doon da doon yee ah. que Sénégal yëpp ko bëggoon mais dañuy bëgg a ñàkk seen comment dire dañuy bëgg a ñàkk seen crédibilité. mën nañoo wax loolu quoi parce que man yaakaaroon naa ne li fi jotoon a xew temps yi li fi jotoon a xew man yaakaaroon naa ne moom dana ci dana ci jël benn leçon boo xamante ni dana jël benn leçon boo ni dana ci euh, mën a sax euh, comment dire dana ci mën a mën a mën a gindi nit ba pare euh, defaraale ci booy quoi mais moom dafa dikk def lu ko gën a pur. vidéo bi moom dañuy dikk ñëpp gisandoo ko parce que man bi moo ko gisee dama choqué waaw wala loolu laay naa si bi ma gisee vidéo bi man li ma njëkk a def mooy dama choqué quoi dama choqué. parce que man comme mu tuddal ba guddi ku ne ma woon pâtissier dina def lii bi lay walaay ba mais nag c'est honteux parce que moom gàcce la quoi. vidéo bi nag dinañ ko indi parce que booy xool quatre vingt dix bu Sénégal yëpp seetaan nañ ko mais dañuy dikkaat rek régime régime la def. je je pense que ne sax am na ñoo xam ne gisaguñ ko dinañ ko jaaree gisaale ko quoi. parce que lii ñaaw na trop. ñëpp a koy naqarlu. parce que li moo tax tey mënu ma dikk def question réponse direct parce que ni doo que. boo seetaanee euh, sa xol dafay du neex ko sa xol du neex parce que euh, li ñuy gis dafay dafay doy waar quoi dañ ñun ñun ban Sénégal la ñu def. waaw parce que ñun Sénégal booy booy xool dafa am lu ñu baaxoo quoi dafa suñu aada ak suñu suñu cosaan Sénégal dëkku diine la quoi dafa am loo xamante ni waru li may wax à chaque fois quoi waru fi am mooy loolu parce que ñun war nañ ko jomma def waaw bu ko defee nag gars yi vidéo bi je pense que li ma wax cent ñu ko gisul gisaale ko gars kon boog let's go ñu xool ko te ñëwaat waaw. loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. kon boog gars yi bi ñoo ko gisandoo doy na waar trop doy na waar man franchement parler Patisen dafa ma bett quoi wax dëgg fa yàlla Patisen man dafa ma bett. li may wax euh, sànq rek dama choqué quoi te Sénégal yëpp bi ko gisee dañoo choqué waaw parce que ñun moom dafa am loo xam ne mooy suñu réalité war nañoo joué leneen lu ñaaw lii quoi. parce que bu leen fàtte ne série tamit euh, nit ñi dañ gis koo xamante ni dafay toog papa ak yaay toog ay doomam di seetaan série yi imagine tool ñu dem ba egg ci par bi lan la ñuy def lan la ñuy mën a def genre dañu mën a zapper changer feneen wala sax ñu fay télé bi ñun suñu ré suñu réalité mooy ñun série yi ñu war a def ñun ñun dañu ko war a seetaan en en en famille. xam nga mu bañ am benn benn benn euh, maanaam lu lu vulgaire lu ci nekk wala lu bizarre parce que bu leen fàtte ne tamit euh, série lu tax ñu war ko di ko di ko joué mooy dañ ci di war a yeete. xale di ko seetaan di xam lii mooy lu baax ak lii mooy lu bon mooy loolu mais tey bu ñu demee ba nga xamante ni dañ def ay série dañuy def naka suuf noonu waaw dafay jaaxal yu bari tamit te booy xool léegi sax. Euh, boy ñun ñu bari ah ñun ñu bari je pense que ak ak ay jeunes yoo xam yu bari sax léegi ñu ci bari seen téléphone portable la ñuy yor waaw si la ñuy seetaan ay série même sax bu ñu ko seetaanul en famille mën ko seetaan seen téléphone portable te am na ñoo xam ne bu ñu ko gisee mën nañoo yaakaar ne lii mooy lu baax te lii du lu baax quoi franchement. man nag euh, di wax Pathé Sène leen rek laa am lu wax ci moom bett na ma Pathé Sène nga ma Pathé Sène nga ñun sénégalais yi quoi.

xam Sénégal bi moo ko yàq tamit dañ ko yàq te dee maanaam ñoom dégg naa moom moo bind série bi série bi dañuy tourné seen série série bi ñu ngi koy daw sénégalais xamuñ ko xooluñ ko bu ñu xamee ne xooluñ ko dañuy dem def seen benn parti boo xamante ni lu lay doon wala ñu ciy def lu bon loo xamante ni doo sax comprendre quoi dañuy fexe jël parti boobu bu ñu paree jox ko gars yi wala wala ñu teg ko gars yi xam nga gars yi bu ñu ko gisee dañ koy capté jël ko commencé ko dugal ci réseaux sociaux yi xam nga bëgg commencé bëgg gars yi seen seen seen seen bi wala ñu bëgg ci jàpp ay yenn vues yi quoi pour man loolu boo koy xool euh, maanaam se kaay leen seetaan sama série far force la quoi mais sénégalais moom yaakaar naa je pense ne ñàkkatuñ fayda ñàkkatuñ fayda quoi ku leen di tegal yu bizarre yi wala ngeen di tegal loo xam ne du naka suñu noonu ñoom ñoo taxaw carrément tañ la wax la ne la yow bett ngeen waaw wax la li ñu la war a wax yàq la li ñu la war a yàq waaw te Sénégal léegi ñëpp yow nañ quoi je pense que ne ñoom nekkatuñ di seetaan ay série vulgaire yi quoi dépassé nañ ko en tout cas Pathé Sène lan rek la am lay wax bu fekkee ne si série bi waaw nii la nar a continuer arrêté ko waaw da nga am jabar am nga ay doom yoo xam ne ñoo la war a seetaan te YouTube dafa nekk loo xamante ni vidéo bi ci dugg fii ba 104 dimanche du génn loolu dama bëgg ngeen koy suraale bu baax a baax a baax a wala nga am yenn âge doo bëgg ñu génn la lii wala yow boo ko gisee da ngay rus sa jëmmi bopp quoi waaw loolu nag ba ñu faa egg waaw ku nekk nga suraale nga moytu nga bu baax a baax nga àdduna bi moom

leen wax ne leen gars yi kon boog dañuy joxante rendez ci beneen vidéo quoi xam naa du dara kon bu ko ñu di wax Ndoye Ndiaye quoi ba xam li wax ñun ci vidéo bi loolu la wax ah Ndoye loolu la wax. Ah, man ñun lii nañu wax kon na suñu loolu la wax. wa wa ah, kon suñu ah dafa ñaan rek ñu ñu tasaaroo tasaaroo ba beneen yoon xam. Ngồi hồi lấy phải